Mampoor. Eh. nit yi yow guddi rek ngay dox. waaw man guddi rek rek laay ah. waaw guddi. Mampoor yow jinne nga. déedéet. mais li nga gis jinne bari na. ñaar yoon ñaar yoon laa ko mos a ah. ñaar yoon laa ko mos a bi nga ko gisee lan la la def. moom moom nag moom nag dama kaa gis ma taxaw. mabay ko ba mu jàll après ma du rek dox sama dox loolu mooy bi ko njëkkee gis yow bi lampe amu fi ñaati kilomètre ngay dox par jour si lëndëm gi si lëndëm lelek léeg-léeg ma dox ko ñaari kilomètre léeg ma dox ko kilomètre fekk yow fu amul lampe amul dara yow fu la ngonal fekk da ngay ngonal ba bët set wala da ngay ragal leg léeg nga xaar ba set nga dox wala Ngonan Bangunan euh, euh, ko gëj gis jinne yow ba nga xam ne euh, liy jinne la kañ nga ko gëj bi nga ko gëj sax léegi ñaati fan lay yem ñaati weer ñaati at. non gis naa ko gis daaw la. daaw gis nga benn. waaw fan nga ko gis. fii sama diggante ak Ndao Fall. waaw. xew naa ko mu tàggatoo. fan nga jóge woon. boo xam naa jóge woon ba ñibbisi. ban heure la woon. ay une heure yooyu. léegi nag mës nga gis xon faaf wala li ñuy wax euh, akoy. xon faaw nag koy nag gis naa ñaati yoon. ay juróomi yoon. ay nit yoo xam la. xamuloo leen. yow di ngay tiit. damay tiit wante nag damay ànd ak sama sago. moom dañuy jàll lan moo tax doo doo lu tax nga bëgg dox guddi. man nag léeg-léeg nag damay toog ba sama xel nekk sama gaa yi man a xaaral ma dem fekk leen. yow bu sa xol yi xel nekkee sa gaa yi rek da ngay dem fu ñu mënti nekk nga dem fekk leen ko waaw damay dox sama. ragal doo tiit bu mu nekk da ngay dox. heure doxat mu si waat. buy tawax buy naaj ak bu nekk ay guddeer naaj yëpp damay dox mu si. Allahu akbar. nel si dox. Tá Cicão. Cicão. <laughs>